moo tax mu naa fa in marroo ndem romb nañu bil madinati ci madina fal afdalu la gën lahum ñeel leen an yuxrimoo mooy ñu armale min miqaati ahliha ci miqam ñooñ madina min dil xulayfati te mooy ca dil xulayfa ñooñu daal bu ñu rombee madina la gën mooy rek ñu bokk ak waa madina benn armalukaay te mooy fu ñuy wax dul xulayfa te bañ a xaar ba àgg ca seen armalukaayu bopp armala ci miixa nag moom daa bokk ci warugar yi nga xam ne soo ko bàyyi am alamaan maanaam soo weesoo fañ la diggal nga armale fa jàll ba noppi door a armal nag kon da nga am alamaan wa miiqaatu ahlil xiraaqi mii xam ñooñ xiraaq daatu xirqin mooy daatu xirq képp koo xam ne xiraaq ngay bàyyi ko mbaa ngay romb xiraaq boo dee ñëw rek fa ñu tuddee daatu xirq mooy béréb ba ngay armale wa ahlil yamani mii xam ñooñ yaman yalam lamu mooy yalam lam koo xam ne daa bàyyi ko yaman mbaa muy romb yaman bu dee ñëw ba tey kon fa ñuy wax yalam lam mooy seen armalawukaay wa ahli najdin mii xam ne najdu min xarni nekk na ci xarn koo xam ne dangaa bàyyi ko najd mbaa foofu ngay romb boo dee ñëw kon fu ñuy wax xarnu mooy seen armalawukaay kon noonu lañu ko defee rek ay armalawukaay kenn ku ne foo bàyyi ko rek ci goxi adduna bi am na béréb boo xam ne fa ngay armale wa man marra ku romb min haawulaay ci ñi bil madinati ci madina fa waajibun aji war la xale yi ci moom ay yuhrima mu armale min dil xulayfati ca dil xulayfa idi ngir laa yataxaddaahu du ko jéggi ilaa miiqaatin jëm ci miixa lëxoo ñeel ko nee na ñi mu wax nii moom koy ci xam ne romb na madina faaw day war mu bokk ak waa madina benn armalawukaay ndax ñoom ñi ko ci romb madina fekkul yow fa nga war a armale nekk ci kanam bokk te ña nga weesu woon ci waa sowu beeg Misra ak Saam nga xam ne ñoom buñu rombe bu ñu rombee Madina itam seen armalawukaay daa nekk ci kanam nga xam ne ñoom ànd ngaa waa Madina bokk benn armalawukaay lu ñu sopp rek la waaye du lu war ku bokk te ñoom nag moom bu jaaree Madina faaw daa war a bokk ak waa Madina benn armalawukaay ndax moom mii xam daa nekkul ci kanam bam naa damay nekk ba àgg ja wa yuhrimu dana armal alxaaju aji aj awil mutamir wala aji xumra bi isri salaati faridatin ci gannaaw julli farata aw naafilatin wala naafila armal ci boppam jàppal ni mooy fas yéene ci sa xol aj mbaa xumra boo dogoo ci xol bi ci def aj gi mbaa xumra gi rek armal am na léegi nag dañoo bëgg armal googu topp ak julli bu toppee julli farata baax na bu toppee julli naafila baax na ku topp itam du ko tee baax na ñu bëggoon daal boo sangoo ba noppi nga julli ñaar rakka dagam waxtu ba dagan naan naafila rakk bu jëkk ba fatiha xul yaal kaafiroon rakk bu ñaareel ba fatiha xul wallaahu ahad boo sëbalee wax sam xel de suñ borom yéene na ma aj sa néeg bii yàlla na ma ko yombalal nangul ma ko yéene ñett la man ngaa yéene aju kese loolu moo tudd ifraad man ngaa boole yéene aj ak xumra ci benn yoon loolu moo tudd xiraan man ngaa yéene xumra kese def ko ba àggal wëlbati ko aj nag loolu moo tudd tamattu ci nekk mën naa am boo armalee nag nga wax labbayka warugar la soo armalee lu yàgg te waxoo labbayka rek daal di am alamaan tawante nga bàyyi labbayka ci nag bàyyi gu dog a dog kooku moom waxaale wuñ ko moom bu armal lu yàgg te waxoo labbayka daal di am alamaan moo tax ma naa yàqool day wax labbayka wuyu naa la ci gannaaw ak wuyu allahuma yow buur bi labbayka wuyu naa la ci gannaaw ak wuyu nee nañu lim naa wuyu naa la gannaaw bu ma la wuyoo mooy ba suñu borom ne alastu bi rabbikum maanaam ba suñu borom waxante ruy ne ndax du ma seen borom ruy yëpp ko tontoo ne ko ah kay yëpp balaa ah kay lañ ko waxoon am na ci fuy waxan aakay ci kaw coobare am ñu ko waxan ci force ñu ko waxan ci coobare ñoo wéy gëm ba ñëwee adduna ñu ko waxan ci kaw force nag ñoo wéy ñoo wëlbati ko weddi loolu mooy jenn wuyu ga wuyu ga ci des nag mooy ba su borom ne ibrahim wooteel ñu aj ci kaaba gi mu daal ne ayyuhan naasu inna lillahi baytan fa xujjoohu yéen nit ñi suñu borom day ab néegam a ngi nii nee na ngeen ñëw aj ci ko nee nee nañu ba ibrahima yëkkatee kàddu googu képp ku suñ boroom nar ci moom bind ne dana aj ci néegam bi rek yaa nga doon tontu ibrahima di ko wuyu ca wooteem boobee doonte sax daa fekk mu nekk ci biir bi yaayam mbaa mu nekk ci ndiggal baayam it du tee rek moom ndegam yàlla bind na ci moom ne ku nar a aj ci màkk la rek xamal ne tontu woon na booba loolu nag képp ku nekkoon ci biir bi yaayam mbaa mu nekkoon ci ndiggul baayam rek wuyu woon na woote ibrahima boobee yaari wuyu yooyu nag moo tax ñu naa la bayka wuyu naa la ci gannaaw ak wuyu laa sharik amul jenn aji bokkaal lakka ñeel la la bayka wuyu naa la ci gannaaw ak wuyu indal xamda ngir naka cant ga wan ni amata ak xéewal ga lakka ñeel na la wal mulka ak nguur ga laa sharik amul jenn aji bokkaale lakka ñeel la la bayka noonu lañ koy waxee da ngay waxee la bayka allahumma la bayk la bayka la sharika laka la bayk إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويلوي تمو يينه ما اراد لا منام من حجين تي اج او عمره ولا عمره نيم كو واخه داي ماني نه داغاي wax la bay ko noppi doora yéene waaye jàppal ne armal moom foo ko dégg rek mooy fas ci xol bi aj ga mbaaxum raga te loolu mooy jiitu wax gi la bay ka wa yumaru def na ko digal an yaxtasila mu sangu xindal ihraami fanama armal ga qabla an yuhrima njëkk muy armal waaye ta jarrale te muy summiku min maxiti siyaa bi ci yañu ñaw yi yére ya kuy bëgg armal sunna la nga sangu cangaay loo xam ne boo sangoo bu noppi daal di armal fa saasa xam ne boo sangoo daal julli ñaar rakk rek ndegam daga naa naafi la moo ci sas daal di armal fa saasa bu dee góor moom dañ koy aaye sol yére yu ñaw moo tax bu sangoo bu noppi day wut teraxlaay ak ak làmbaay ak daal di carax daal di sol ko defee mu yére armalam bu ko defee nag mu daal di armal ndax dañ koy aaye sol yére yu ñaw bu koy def rek am alamaan jigéen nag mu aaye wuñ ko sol yére yu ñaw bu ko neexee mën naa sol yére yu ñaw wa yustahabu def na sopp loxoo ñeel ko ay yaxta ci la mu sangu li duxoo li màkk te ngir dugg màkk xanaa bu dee bëgg a dugg màkk sopp nañ mu sangu cangaay loo xam ne day sot ndox mi rek noonu waaye du bomb wala yasal du dañ yu labbi di wax la bayka du bura salawaat ci gannaaw julli ya waxinda kulli sharafin ak fi yëpp tund waxinda mulaqaati rifaaxi ak fataseeg àndandoo ya walay sa xale waaye dee di ko war nag kasaratul ilhaay bari xuuxle ga muy bari sëgg ga muy sax ga bi taali gi ci loole la bayka dañoo bëgg moom boo xasee armal nga di ko wax ci ci diggu doomu ca na nga yëkkatee sa kàddu ak na nga koy taqoo bëgguñu nga xumbal ko lool ba nga xam te mujj da ngay xëx mbaa nga baril ko lool ba mujj mu sàppi la de dañoo bëgg rek sa kàddu diggu doomu te ba sonni noppalu ba noppaloo jëlaat ko bu amee lu la gàllankoor mel na julli mbaa lekk mbaa naan mbaa yéeg aw tund mënoo ko boole yëkkati sa kàddu mbaa boo te seeg àndandoo yi ngeen nuyoog jàmmante yooyu yépp rek lu ko dog rek bu loola jàllee nga dellu ko yeesalaat dellu ko waxaatati ba sonni noppalu rek nag moom bala nga ko bàyyi dëgg dëgg nga ñu ne tey ji la bisu arafa ba nga dem ba jullikaay arafa bu dee ci yoon Maalik moom boo demee jullikaay arafa ci bisu arafa bi fa ngay bàyyi la bayka nag bu wér ci aj gi lim naa waru ko mu bari xooxle ga mooy mu saxoo ko saxoo goo xam ne mujj sàppi ko rek mbaa kàddu ko xubb lool rek ba mujj muy xooxle yooyu lañ cey bay fa isaa daxala ndéem tàbbi na màkka ta màkka am sakk mu bàyyi ani talbiyati wal si wax la bayka xataa yettoo fa mba te mu wëree kaaba waye sant te muy dox safa ak marwa suma yu xaawidu xaa topp dana baamu la bayka ja xataa tasoo la bërëj asam su jant ba mu ñëw mi arafa la bisu arafa waaye roxate muy gont ilaa musallaa jëm jullikaayam ba maanaam boo armalee fa sa miixa ba tàmbalee wax la bayka da ngay ñëw nag wut si màkka boo agsee màkka nag da ngay bàyyi la bayka ji daal di fexee wër kaaba gi loolu ñuy wax tawaaful xuddoom wërub nuyoo wërub ki door a dikk màkka da koy wër boo wëree ba daf ko dox safa ak marwa boo wëree kaaba dox safa ak marwa nag nga delluwaat tàmbaliwaat di waxaat la bayka ji ba sonni noppalu di ko yeesal ba sonni noppalu bañ na tey la arafa ba nga dem ba ci julkay arafa ba ba demee foofu nag bu dee ci yoon Malik moom foofu nga koy bàyyee ne am nañ sax ngir yoo xam tax ñu bàyyi ko fa saasa wa yustahab bu def na sopp añ yadxula mu duggee màkkata màkka min kadaay saniyati ci mbedd gi ñuy wax kadaay saniya allati ma nga xam ne bi axlaa mak bi axlaa màkkata nekk na ci gën jaa kaway màkka wa isa xaraja ndem nam naa génn xaraja mu génne min kudan ci kudan way lam yafxal ndem defut fil wajhayn ci ay anam ya fala xaraja kon den bakkaar maanaam sopp nañ booy dugg màkk nga duggi ko mbedd mi tudd gada ustaniya su bëggee génn màkk nga génne ko mbedd mi wax ku dan waaye bu fekkee duggi woo ko mbedd mi mu la wax génni woo ko moom itam dara nekku ci dañoo sopp rek loola qaala malik nee na fa isa daxale dem dugg na màkkata màkka fa yadxul na dugg al masjida jàkka ja al xaraama jërit ñu ormaal wa mustahsanun te luñ rafetlu la an yadxula mu duggee ko min baabi bani shaybata ci buntu bani shaybata ñu mbine ko baabu salaam fa yastalima te muy foon al xajara doj wa al aswada way aji ñuul ba fii ci gimiñam in xadara ndeem attan na ko wa illaa ndeem mënu ko wadaxa mu teg yaddaxoo loxoom xale ci kaw doj wa suma wadaxa toog mu tegaat loxoom xalaa fii ci gimiñam min xayri taqbirin ci lul mocco suma yettoo fu topp dana wër nag wal baytu te mbir moom nee ba xalaa yasaari yi nekk na ci càmmooñam sabaxata atwaafin juróom-ñaari wër salaasat ñett xababan ci ak ñëkk suma arbaxatan topp ñeent machine ci dox na mane maali daa wax ne boo duggee màkka da ngay bàyyi yitte yépp fas yéene wari kaaba gi warub nuyoo bi dañoo bëgg na boo dug boo dugg kaaba ga nga duggee ko baabu salaam soo duggee nga daal jawali la ñu tuddee alxajar al aswad daal di koy fexee fóon ndegam yaatu na ba nga mën koo fóon soo ko mënee fóon ak sa gimiñ da nga koy fóon ak sa gimiñ su fekkee mënoo ko nga jël sa loxo teg ko ci kaw doj wa jëlaat sa loxo teg ci sa gimiñ te bañ a muucu sa loxo boobule boo siggee nag ba noppi nag xamal ne foofee nga taxaw fu la wër bay tàmbalee ndegam fóon nga ba siggi nag foofu ngay tàmbalee wër ba nag bu fekkee mënoo caa àgg nag moom da ngay taxaw rek mépp sa fóon daal di wax allahu akbar rek waaye foofee nga taxaw daal moom fa la sëg wër tàmbalee nag nga xam ne boo demee ba astiwaat foofu am nga benn yoon nga di ko def ba mu juróom ñaari yoon bul fàtt nag booy wër néeg bi néeg bi féete la càmmooñ wër bi itam juróom ñaari yoon lay doon bu fekkee ne góor nga te muy ci wër bii nga xam ne mooy wërub nuyoo bi sunna la yett yoon yu njëkk ya nga lagg ko lagg na xaw naa jege ñukk ndax wees na dox ndànk te agul ci daw bu baax yent yu mujjee mu mën nga koo dox da nga mën a doxi rek su fekkee dafa xat ba nga xam ne mën laa ñukk itam baax na ni ki jamono yi moom daanaka soxi jéego sax mën naa mu jafe la te xat lool lool su boobaa kon doo jéem a ñukk da ngay dox na nga mën a doxee rek kon wayestani mu dana foon ponk ba kulla ma marra saa yu rombee bii ci moom kama zakar naa naka la ko tuddee woon buy kabiru te muy kabar maanaam saa yoo tolloog al xajar al aswad te mën a jàdd foon ko da ngay jàdd foon ko ci yoon bu mën doon juróom yaar yi wari yi waaye nag foofu am na teqale foon gi nga koy foon ci yoon njëkk yi moom sunna la waaye foon gi nga koy foon ci yoon yi ci des moom lu ñu sopp rek la agul ci sunna ba tey su fekkee mënoo koo foon nga taxaw fa nga toll rek wax allahu akbar daal jàll wala yasalimu du foon arruk na ponk ba alyamaniya bay ko jóg yaman bi fii ci gimiñam walakin waaye bi yadihi ci loxoom rek la koy laale su ma yadaxuhaa toog mu tegaat loxo ba xalaa fii ci gimiñam min xëyri taqbili ci lul mujjo nee na am lu ñu wooye arrukn alyamani moom wuute naag alxajar al aswad arrukn yamani moom bu fekkee mën nga koo foon ci sa gimiñ itam du tax nga foon ko ci sa gimiñ sa loxo ngay jël teg ko ci rek jëlaat sa loxo teg ko ci sa gimiñ te bañ a muuj sa loxo boobule fa isaa tàmm ne mat na tawaafu foo wëram nga rakkaxa mu julli indal maqaami fa maqaamu ibrahim rakkaxa tey ni ñaari rakka su wër bi matee nga dem fa ñuy wax maqaamu ibrahim nga julli fa ñaar rakk yi wër ga bu fekkee foofu xat na ba mënoo ko faa jullee fokk jullee baax na waaye ñaar rakk yi wër gi kat bokk na ci waru gar yi su fekkee wër ga war gu war la ñaar rakk yooyu mënta ñàkk su fekkee di foog am alamaan jëmi wër boobu waru gar la boo ko bàyyee am alamaan bari da nga cee war a sësale dox safa ak marwa ndax faaw dox safa ak marwa moom daa war a sës ci ak wër kaaba te bu fekkee da nga armale ci miixa te bi nga ñëwee màgg yaatu na ba wër kaaba dox safa ak marwa xaj fa kon yow war na nga def tawaaful xuddoo muy wër kaaba gi jàll dox safa ak marwa su fekkee defoo ko rek daal di alamaan te it bu fekkee def nga ko waaye da nga ko sëslewut dangaa war bu noppi toog lu yàgg door dox safa ak marwa itam ba tey kon alamaan dana am ndax da caa war a sës ba tax mu ne suma salama toog mu foon alxajara doj wa in xadara ndeem attan na ko maanaam bu fekkee wër nga ba wër mat ba nga julli ñaar rakk ca foofee ci maqaam ibrahim dangaa war daal dem ci safa ak marwa doxi leen waaye dañoo bëgg nga jaaraat ci kaaba ga foon doj wa nag door a jàll dem ci safa waaw jaar nga jaaraat ci kaaba ga foon doj wa door a jàll ne nga mën nga ko loolu sunna la tumma yaxruju topp dana génn illa safa jëm safa fa yaqifu te muy taxaw xale yi ci kawam li duxaay ngir ñaan su ma yasaa topp dana dox ilal marwa jëm marwa wa yaxub te muy ñukk fii batnil masir yi ci batnil masir safa ngay njëkk àgg muy aw doj su fekkee mën nga caa yéeg dañoo bëgg nga yéeg ba ca kaw jàkkaarloo kaaba gi ñaan door a wàcc wuti marwa boo dee marwa ba tey aw doj la nga taxaw boo ko mënee yéeg nga yéeg ba ca kaw jëfi wute yéeg nga taxaw jàkkaarloo kaaba gi ñaan door a wàcc diggante bi am na lu ñu wooyee batnul masil ñu miine ko léegi diggante ñaari poto yu nëtëx ya diggante ñaari poto yu nëtëx ya ah diggante ñaari poto yooyu boo fa tolloo mbaa am ñu ko wooyee batnul masil bu dee góor dañoo bëgg mu gaaw ba weesu ko ci yoon man doon moo xam dem bi la moo xam dikk bi la saa yoo tolloo foofu rek nga gaaw ba weesu ko gaaw nag boo tolloo ci diggante boobu sunna na ci góor waaye jigéen moom kenn santu koko fa isa ata ndem dikkal na almarwata marwa waqafa mu taxaw xale xaa ci kaw marwa di duxaay ngir ñaan nga ba tey bu àggee ca marwa naqariwu tey yéeg kon bu dee góor na yéeg ba ca kaw mu jàkkaarloo kaaba gi daal di ñaan bu dee jigéen ba tey te amul xat-xatloog boof booxloo ba tey mën naa yéeg ba ca kaw mu jàkkaarloo kaaba ga ñaan ndax jëm yéeg ga sunna la ñaan nga itam ci kaw ba nga yéegee ba jàkkaarloo kaaba gi ba tey sunna la su ma yasaan topp dana doxaat illa safa jëm safa yafaalu dana def daalika loole sabaxa marraat juróom-yaari yoon fa yaqifu te mi taxaw bi daalika ci loolee arbaxa waqafaati ñeenti taxaw ala safa ci kaw safa wa arbaxan ak ñeenti taxaw alal marwa ci kaw marwa nee na bi nga bàyyi ko safa ñëw bu marwa da ngay bàyyi ko waat marwa ñëwaat safa waaye jàppal ne dem bi dañ koy wàññi aw yoon dellusi bi ñu wàññi ko aw yoon nga xam ne kon dem bi aw yoon la dellusi bi aw yoon la ngay koy wàññi noonu nag dem ak dikk ba mat juróom-yaari yoon loolu na bokk loolu na kon boo ko seetloo da nga taxaw ca kaw safa ñeenti taxaw taxaw ca kaw marwa itam ñeenti taxaw tuma yaxur ju topp dana génn yow ma tarwiyat ci bisub tarwiya ba ilaa minan jëm minan fa yusalli te muy jullee bi xaa ci minan ak duhra tisbaar wal xasra ak takkusaan wal maxriba ak timis wal xisha ak gee wa suba ak suba ana buñ ne tey la juróom-ñetteelu fan ci weeru tabaski wi moom la ñu wax yow mu tarwiya sopp nañu nga bàyyi ko màkk dem minan dañu bëgg itam nga fexe ba jullee ji fa tisbaar tisbaar fekk la minan bu ko defee nag da nga fay yendu fanaan fa ba jullee fa suba boo fa jullee suba nag bis boobee mooy nekk bisu arafa mooy bisu juróom-ñeenteel ba nga door faa bàyyi ko nag wuti arafa mooy summa yam di topp dana wi ilaa xarafaatin jëm arafa wala ya daxu du bàyyi ab talbiyata wax la bayka fii haza ci lii kullihi léppam xataa tazola ba te rëccee asam su jant ba bi ñëw mi xarafata ci bisub xarafa waya rooxa te muy gont ilaa musallaha jëm ci jullikaayam ba nee na nag bul fàtte ne boobi nga ñëwee màkk ba wër kaaba gi ba noppi di laa waxoon nga dellu di yeesal la bayka ji la bayka ji ne kon yooyu jamono nga koy yeesal doo ko bàyyi doo ko bàyyi bañ ne tey jël arafa ba nga ñëw ba ci jullikaay ba nag fekkee ci yoonu Maalik nga nekk boo ñëwee ba ci jullikaay arafa foofa ngay bàyyee la bayka doo ko waxati ci egg gi wal yatattahar na sangu qabla rawaax yi ci njëkk demam nga rawaax day firi ngont waaye dem rek la ci jublu daa bëgg wax ni bala ngaa dem ci jullikaay arafa bëgg nañ nga sangu faye ci ma xoote muy doole bay na duxuri diggante tisbaar wal xafri ak takkusaan axal imaam ànd ilimaan ba maanaam boo foofee fa jàkkee namira ca arafa ilimaan dafay jiite gannaaw bu xutbaa ba noppi sax day door a jiite mbooloo mi ñu julli tisbaar takkusaan te wàññi leen doole gi mooy dañu julli tisbaar ci saasa daal nodd julli takkusaan mu sës ci moom nga xam ne ku nekk day am nodd am liqaam ñoom ñaar waaye dañuy sisaloo dañ leen di wàññi itam kenn ku ne ñaar rek lañ koy julli tuma yarooxu topp dana gontu maaxu ànd ak moom illaa mawqifi xarafata jëm ca taxawaay arafa fa yàq fi tamit taxaw maaxu ànd ak moom illaa xuroo bi samsi ba soxog jant maanaam bu ñu jullee tisbaar takkusaan te doole leen foofu ci arafa dañu dem nag fa ñuy taxaw nag ci arafa arafa nag lépp taxawaay la fu ñu taxaw rek ci arafa lépp arafa ab taxawaay la taxaw gi ñuy taxaw njëkk jant bi so foofee ci arafa warugar la buñ ko bàyyee war a tuur deret taxaw ga nekk ponk nag mooy farata moom mooy gannaaw bu jant bi sooyee nga taxaw fas ndiir lum gàtt gàtt balaa fajara fenk tuma yedd fa mu topp dana jiiñ bi daf yi ci jiñu ilimaan ilal mustalifa ki jëm mustalifa fa yu salli te muy julli maa xaw ànd ak moom bil mustalifa ci mustalifa al maxriba timis wal hisha ak gee wa suba ak suba nee na buñ gannaaw bu jant bi sooyee foofee ci arafa bañ taxaw si ndiir dañ fay bàyyi ko ñëw mustalifa foofu lañu jullee si timis ak gee dañu boole timis ak gee mooy dañul timis teg ca gee fa saasa saasa waaye nag gee ga dañ koy wàññi te timis ga moom deesu ko wàññi wàcc musdalifa nag ba sipp say bagage waru gar la boo ko bàyyam alamaan la gën na mooy nga fanaan fa ni mu wax ba jullee fa suba boo fa fanaanee ba jullee fa suba nag suma yàqi fu topp dana taxaw maaxoo ànd ak moom bil mashhari alxaraam yi ci almashharin xaraam yow ma isin ci bis boobee di xaaja mustalifa boo fanaanee mustalifa ba julli suba ba noppi da ngay dem fa ñuy wax almasharul xaraam taxaw fa nag nekk fa ba nga xam ne léegi jant baa ngi bëgg a fenk nga door faa bàyyi ko ne wuti mi nan nag mooy suma yedd fa mu topp dana jiñ bi xor bi tulluwaxi shamsi ci jegee fenk ku jant ilaa mi nan jëm mi nan wayu xarriku te muy te muy yëngal wayu xarriku te muy yëngal daa bataxoo daabaam ja bi bartani muhassirin ci xuru muhassir maanaam soo bàyyi ko mustalifa ci bi jant bi bëgg a fenk mooy nga bàyyi ko foofee ci masharul xaraam ji mustalifa jëm si minan boo agsee fa ñu wax batnu muhassir ñoo bëgg nga gaaw ba weesu ko bu dee ku war mu gaaw ba weesu ko bu dee kuy dox it mu gaaw ba weesu ko fa isa wasala ndeem àgg na ilaa minan jëm minan ramaamu sànni jamara tal xaqaba te jamara xaqaba bi sabaxi xasayaat juróom-ñaari jàmbaraay ma juróom-ñaari xeer mis la xasal xasfi kem jàmbaraay yi fettax bi nga agsee mi nan tey ji mooy bisu fukkeel bi xam ne bu dee fii ci noonu mooy bisu tabaski bu dee ci ñoom nag muy bisu fukkeel ba soo agsee mi nan li ngay njëkk a def mooy sànni jàmbaraay xaq ba daa am sànniyukaayu xeer boo xam ne da nga fay sànni juróom-ñaari xeer xeer yi day toll ne xeer woo mën a fettax ci sa baaraam rek du rëy bopp du tuuti bopp dañoo sopp sax xeer yooyu nga fore ko musdalifa fa nga fanaanoon bu fekkee fore woo ko foon nag boo ñëwee rek nga for yeneen waaye bëgg nañ nga fore ko musdalifa moom yi ngay sànni tey ci jamray xaqaba wayu kabiru te muy kabar maxa kulli xasaat ànd bépp jàmbaraay maanaam bépp xeer boo sa sànni rek juróom-ñaari xeer yi xeer woo sànni nga boole ci wax allahu akbar suma yan xaru topp dana loj in kaana dem nekk na maaxu ànd ak moom xaddiyun xaddiyu li nga def léegi mooy sànni jàmbare xaqaba bu xasee sànni jàmbare xaqaba na xamal ne kon yéen la aaye woon ngir armal gi yëpp yëpp sañ nga ko ba mu des joti góor ak jigéen ak rëbb ba tey ñu sib laalat ko leen loolu la ñu tuddee yawi ku bu ndaw yawi ku bu ndaw mooy yéen la aaye woon yëpp daal dañ ne ba mu des yett yooyu moo wax léegi daañu wax ne yawi ku bu mag bi kan lay doon su ma yan xaru topp dana loj in kaana dem nekk na maaxu ànd ak moom xaddiyun xaddiyu bu fekkee am nga looy rendi nag gannaaw boo sànnee jamray àqaba ba noppi say boo daal di rendi loolee ngay rendi muy sam xaddiyu su ma yaxliqu topp dana watu boo xasee loj ba noppi nag nga daal di watu watu gi bu dee góor moo gën jemp waaye bu jempoo itam mu doy bu dee jigéen nag moom jemp rek lay def su may at yi topp dana dikkal albayta kaaba ga fa yu fiidu te muy bëbbal li koy wax bëbbal rek waaye mook baat bee ci topp ñoo bokk max naa mooy waya toofu te muy wër sabaxan juróom-ñaar juróom-ñaar yoon la bëgg a wax wayar kaxma te muy julli ñaari rakka fa maqaamu ibrahim kon bi su fukkeel bi mi ngi nii boo xëy séemi nan ba sànni jamare xaqaba loj sam at yu daal di watu da nga daal dellu nag màkka dafi liy wax tawaaful ifaada moom itam na nga wari woon wër bu njëkk ba ngay door a ñëw màkk ñoo bokk juróom-ñaar yoon lay doon li ñu wutee mooy bu fekkee laggoon nga ci wër bu njëkk ba bi yoon moom duñu sopp nga lagg ci benn yoon dañoo bëgg rek nga dox na nga mën a doxee. fekkee lëggoo woon ca boobu nag kon ñu sopp ñetti yoon njëkk yi ci biir itam nga laggu ko dañu fàtte ne góor lañu sant lagg gi waaye jigéen moom kenn du ko sant lagg benn yoon su wër bi matee nga dem julli ñaar rakk ca maqaam ibrahim muy ñaar rakk wër gi su ma yuqi mu topp dana sax bi mu nan ci min salaasata ayaamin ñetti fan maanaam soo ñëwee ñi nag màgg ba def tawaaful ifaada loolu mooy yewiku bu mag bi bu fekkee fekkoon na nga dox safa ak marwa kon xamal ne yewiku nga bu wér wér mooy amatul dara dara luñ la aayati ci yañ la aayewoon ci armal yépp yépp aayatuñ la ci dara dara la des nag mooy nga fexee fanaani minan ndax yaari guddi yi nga xam ne moo ci topp muy bis bi nga yendu muy fukkeel tey nga war a fexe ba gont fanaani minan ndax guddi googu da nga ko war a fanaan minan kon fexeel ba jant bi soyal minan guddi googu aga ci topp mënu ko faa ñàkk fanaan guddi ñetteel ga nag boo ko fanaanee lay gën waaye ñaar yi moom mënuñoo ñàkk boo ko bàyyee am am alamaan ndax bokk na ci waru gar yi fa isa salat ndem rëcc na asam su jant ba min kul yow min ci bépp bis min xaaj ñetti fan yooyee ramaamu sànni aljamrate jamra ja allëti ja nga xam ne te lii dana sa soog minan minan bi sabaxi xasayaat ci juróom-ñaari jàmbaraay yu kabiru dana kàbbar maxa kulli xasaatin ànd ak bépp jàmbaraay maanaam boo xasee dellu fanaani minan mais ne biñ la woon tey ji nuy jànge di talaata mooy bisu fukkeel bi nga dem màgg ba def tawaaful ifaada tey ji boo fanaanee minan boo xëyee suba mooy nekk fukk ak benn bu tisbaar jotee da ngay dem sànni yetti jamra yi maanaam ñetti biribi sànnikaay la yoo xam ne fenn bu ci nekk da nga fay sànni juróom-ñaari xeer te xeer wooy sànni nga waxaale allahu akbar te itam yetti jamra yi day aayo day aajoo nga tegale leen da ngay njëkkee jamra ba njëkk teg ca ba ca topp mujj ba mujj waaye boo ko tegalewul noonu du baax teew na ñooyam li benn ba ci nekk juróom-ñaari xeer lañ koy sànni te xeer wu ne nga boole ci wax allahu akbar tuma yaram yi topp dana sànni al jamra tey ni yaari jamra ya kulla jamra tin bépp jamra bi misli zalika nekk na ci kem loolee day ñetti sànniwukaay yoo xam ne daal moom ni ma ko waxee léegi bisu fukkeel ak benn ak bisu fukkeel ak ñaara moom mënta ñàkk saa yu tisbaar jotee rek nga dem ci ñetti sànnikaayu jamra yee benn bu ne nga sànni fa juróom-ñaari xeer wayu kabiru tamit kabar maxa kulli xasaatin bu yàqtu dana taxaw li duxaay ngir ñaan bi isram yi ci gannaaw sànni ga fil jamrat ci jamra ba al ula ba jëkk wa thaniyati ak bu ñaareel ba wala yaqfu te du taxaw nag xinda jamratul xaqabati fa jamray xaqaba wala yan sarif na walbati ko fa saasa xam nga day ñetti sànniyukaay sànniyukaay bu jëkk bi boo ko sànnee ba noppi dañoo bëgg nga ñaan ko ñaan gu yàgg-yàgg mel ne ku doon jàng saaru baqara sànnikaay ñaareel ba itam boo sànnee ba noppi ñu taamu nga yàgg fa lool ci ñaan waaye nag sànnikaay ñetteel it moo tudd xaqaba xaqaba moom nga sànni woon moom dong bi nga xëy see mi nan ci bisu fukkeel bi ñaari fan ñii nag wala ñetti fan ñi ngay sànni nag moom moo ciy mujj moom nag jamre xaqaba moom boo ko sànnee ba noppi doo ñaan ñaari ñaari ko jiitu rek ngay ñaan bëgg leen sànni ba noppi waaye moom boo sànni ba noppi nga la jékki-jékki daal dem fa saasa fa isaaramaan dem sànni na fi yow mi ci bis ba ak saalis bi aj ñetteel wax wate moom raabixu yow mi naxari mooy aj ñeenteel bi sut loj ba in sarafa mu wëlbatiku illaa màkkata jëm màkka waxad tàmm te mbir moom mat na xajjuhu ajam nga sànni jamre yi moom moo mujj ci aj gi waxoon naa ne bu fekkoon tey ji di fukk di talaata doo mën a ñàkk sànni suba yetti jamre yi si baar jotee muy suba di àllarba ak alxames ñaari fañ mën ñoo ñàkk waaw soo mënee xaar nag ba sànniwaale ajji mu muy ñetti yoon nag ñetti fan bu ne nga sànni jamra yi fanaan fi ñetti guddi loolu moo gën waaye bu la neexee nag boo sànni ñaari fan ñi ci ni ma misaal mel ne boo sànni suba àllarba sànni alxames rek daal di gaaw génn dellu màkka mbaa foo bëgg a dem rek daal di génn bala la faa jant ba soyee ndax bala fa jant ba soyee ci bisu ñaareel boobee ci sànni ba itam faaw ngoor a xaar bu ñetteel ba mu lay wax naa wa incha allah ndéem soob na ko taxaj jala mu gaawee fi yow may ni ci ñaari fan min ayaam minan ci fani minan faramaate mu sànni wan sarafate mu wëlbatiku alquran waxe fa man taxajjala fi yow may ni fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi liman ittaqa xanaam ñetti fan yi moom ci la ñuy sànni jamra yi waaye boo yàkkamtee boo sànnee ñaar yi nga sànnee bu ñaaral ba rek nga gaaw génn wala dafaa jant ba soy ni ma ko waxee woon léegi boo xaaree jant ba soy la xawam baaw nga xaar ëllëg si bu sànni ko muy ñetteel ko defee nag ndegam saani jàmm yi jeex na kon mën ngaa del si màkk mbaa foo bëgg a dem rek nekk fa ba waaj ba jekk ba waajee ba jekk nag ba dem rek des nga ñëw wóor kaaba gi wóorub tàggoo may fa isaa xarajan dem nam mën a génn min màkkata tukkee màkka taafa mu wër li wa daa ngir tàggu kaaba ga war a te mu julli wan sarafa te mu wëlbati ko nga daal di wër kaaba gi rek wërub tàggoo na nga daa wëri rek ngay wëri juróom-ñaari yoon ba fi julli ñaar rakk ci maqaam ibrahim door a ñibbi nag wal xumratu xumra yeefxal dana def fiihaa ci moom kama zakar naa nan tuddee woon awalan ci njëlbeen ilaa tamaami sang yi ba ci matu dox bay na safa diggante safa wal marwati ak marwa su ma yaxliqu topp dana wat rasahu boppam waxad tàmmat tamit moom mat na xumrat xo umraam nga umra sunna su dëgër la benn yoon rek bu xasee def benn yoon moom daañu sopp at mu ne soo ko mënee nga dem xumra ji waaye nag bu jëkk ba rek moo nekkan sunna ya ca topp yépp yu ñu sopp lay doon boo mënee fexe nag ba umra nga defee ko ci weeru ramadan xéewal lay doon ndax addis ba daa wax ne umra ci biir weeru koor